bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi nuyoo di ziar euh, mbokk jullit yëpp di jiital ci nuyoo bi Chérif Abdoulahi ibnu Rawlaay Isa ibnu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dolli wér yàggal ko fi lool sunu kanam alasaan ci barke Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam ñu ngi fi toog ci xabru baayam bu tedd bu sell bi. jàkkaarloog euh, jaam yàlla yi fas yéene waxtaane xew-xew bu rëy xew-xew bu mag muy xew-xew boo xam ne ñu ngi ko teg ci loxo comité de pilotage bi nga xam ne moom la ñu sas mu war a saytu xabru maam amaanatullaahi doomi Seydina Limaamu Laay ju tedd jooju nekk ca nding la ñu fas yéene ko yeesalaat te defoon pose première pierre bi ca mois de mars incha allah ñu bëgg a nag benn journée bu mag muy journée de collecte boo xam ne dañu bëgg a jàmm yàlla yëpp dugal ci seen loxo ndax comme ni ko Pam Maam Dieng waxee ci ndinga la laayeen yëpp ñoo ci war participer kon moo taxoon mooy sababu tey sunu toogaay bi fii bëgg képp kuy laayeen képp kuy allah le premier septembre nga fekk ñu ci préwowu Cambérène suba ba ca allah daañu fa toog ànd ak sang yi fas yéene xaar yi ñu indi sen contribution pour mën a participer ci defaru xabru boobu nga xam ne xabru bu am solo la xabru boo xam ne ñëpp a ci war a dugal seen loxo kon maa ngi fi toog tey jii ak comité de pilotage bi jël kàddu gi fi fas yéene ko jox président Maguette Lo mi nga xam ne moom moo jiite comité boobu ànd ceeg Baye Ousmane ànd ceeg euh, Ransar ànd ceeg Abdou Aziz coordonnateur. li ñuy bamtuwaat mooy li soxna li sa wax rek. muy liggéey boo xam ne tey ay jaam yàlla saaba seen aliment bu ñoo ko engagé pour taxawee ko ngir jàppale li seen wàll ci diine ji jàppale Sëriñ Abdoulaye ci liggéey bi tamit muy loo xam ne sas la boo xam ne ñun taalibe ñoo ko sasoo fa séenité sàkku ñaanam moom mi nga xam ne tey jii moom la maamam tuddoon démb ne bu ñëwee yoon wi siiw kon ñun ñëpp saaba yi dañ ci war a jàpp ngir siiwal yoon yoon woowu ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mottalu ñu yéene ji ñu ànd see commission bi nga xam ne tey jii ñoo taxaw ngir jàpp liggéey boobu yëpp kii suma càmmeñ mooy Baye Ousmane sama ndijoor soxna Lisa euh, Seydou Ran abdul Aziz coordinateur ñuy ñaan yàlla rek di woo jaam yàlla yëpp ngir ñu ñëw jàppale ñu si liggéey bi nga xam ne tey jii moom lañ fas yéenee taxawee ngir ñoŋal xabru Maam Mante ah ñu àndoon ceeg nag ki nga xam ne général bi Baye Ndiine waxtaan ci ak mu xalaat ci ci ndigal yabal ñu si ay ak ay magam ak ñu dox yalla dogal mu tekk ci loxo Idrissa kon Idrissa moom mu ko teg ci loxoom tey jii bu liggéey bi egsee fii ginnaaw yàlla mooma yàlla na ko yàlla jàppale oyofal bi ci moom di ñaanal commission bi tamit yàlla mottali seen yéene di woo jullit ñëpp nag bàyyiwunu kenn jullit ñëpp la ñuy wax waaye nak, ah tàgge boo gis am diw di ci woo laayeen yep, te xam ne lii daal rek lañ ci man waaye laayeen yëpp ñooy kon yalla nañu si yàlla defal jàmm ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim génn alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf président ñu ngi sant di yàlla di gërëm Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam di wax ne kàddu yi rafet na matale na di wax rek ne le premier septembre incha allah képp ku bëgg a participer te mënuloo ñëw am na numéro compte orange money boo xam ne loo ci envoyé dina egsi ci comité bi incha allah numéro boobu mooy 78 296 99 74. keneen ku nekk à l'extérieur aussi am nañu compte boo xam ne. compte bancaire la ñu ngi ko ñu ngi ko ubbi ci BOA compte boobu numéro mooy SN 100 010 18 00 45 44 10 00 00 clérib bi di 23 ñuy ñaan jàmm yàlla yëpp képp koo xam ne dégg nga woote bi nga xam ne sacerdoce la pour ñun que ñu eggali liggéey boobu ba balaa ndingali di di ñëw incha allah ñu mën a jébbal clé yi sang yi nga xam ne ñoo ñu sasoon liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf laay maxtaar